yéen kaay bi di laaj na dëgg la kay xibaar boobu yëg naa ko lu ñuy tuumaal Cheikh Bamba Dièye nag moo di dafa outragé maanaam dafa xaawi sutura magistrat yi yéen kaay bi les économes waaw war nañoo amal benn laaj est-ce que légal na jaadu na ñu convoqué député samedi looloo jar a ca booba nguur gi di wéy di lànkal nit ñi seeni manifestation rek bu ci mujj ban la bii ñi nga xam ne policiers yi dañ leen gaañ wala ñu rey seeni doom ñu namoon def benn manifestation Vox Populi na préfet daf leen ko gàntal muy collectif pour la lutte contre les violences policières ñu ne waa préfet lu tax mu gàntal leen ko ñu ne dañoo bëgg yàq deru police te police rey police ay faat police say gaañ police def lépp préfet na mukk loolu du fa am beneen introduction bu daan mouvement Bougane ngay Dany gëm sa bopp ginnaaw bañ ko gàntalee grand théâtre gantalaat nañ ko manifestation ba mu bëggoon def fii ci ñaari tali Vox Populi moo ñu ko xamal waaye yi moom ma ngay préparé wu baax a baax te kenn du préparé wu moom rek moo fas ne préparé wu yëral yéenekaay bi di Vox Populi ñu ne tàmbali na waxtaan yi ak ay alliés ndax dañoo waaj a jëm ci assemblée général bu réeréy bu mouvement présidentiel mi nàmm moom ay mbiram di waaj yéen kaay bii di laas na parrainage tournée économique audience politique moom moom mi ngi préparer waaye kenn amul droit préparé luy moom loolu la ñu seetloo xam naa dina doxantu ba fleuve Gambie ndax yéen kay di enquête ne na fay tabax pont bi nga xam ne ñëpp ñoo ko namoon di passage des automobilistes ndax métti na woon lool jaar biir Gambie ñu ngi ko jàpp nag inauguration bi janvier 2019 Babacar Gaye tontu ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ak ñamu ànd ak Vox Populi jot lu ñu ko mun na leen libéral dëgg ci ngor ci fulla ci fayda du bàyyi parti boo xam ne dañ koy defaraat dem feneen di ngi doon ay transhumant di lay lay di layaam layaami di am looy wax concours général coow laa ngi nu kur yëral yéen kay bi di les échos mari ñaan ne d'accordul ci classement bi ñu def meilleur élève déedéet nee na médaille d'or médaille d'argent médaille de bronze wa vert bay mënu ko remplacer benn yoon ñu ne ko waaw yéen xale ñoo la saf ci lañ def ci résultat mun a Samba Xadi Silla El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh Kane kooku jàpp naa xale yooyu ràññee nañ leen lool nee na nag lii du débat politicien déedéet enseignant ak pédagogue ñoo war a séq débat bi dañoo bëgg a tabax ci seen sendu port yee ak vraquier l'observateur na jur na coow ba tax am na lëngoo bu am ci ñi nga xam ne mbir moomu da leen laal ak élus locaux yi ngir taxaw kon jàkkaarloo nag nguur gi ak promoteur bi Moussa Wagué ma nga Barcelone mu neex ci xol lool Vox Populi na ci tàmbale gi nag défenseur bu nga xam ne fukki at ak juróom-ñeent dong la am ci équipe réserve bi lay football Modou Lo Balla Gaye tey jii ci biir yéen kay bi l'Observateur Aziz Ndiaye ne Ligue Nicolas yàq rek yàq rek la bëgg moom tas sëy yàq rek la fi nekkee waaye nag jarul muy wax di ratatat Modou Lo Balla Gaye 2 moom fala budd dina am jërë ngeen jëf ci ne ci altine jëm incha allah